asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci liñ doon waxtaane démb ci suñu waxtaan ci suñu vidéo bu mujj muy ñi ñu jiital ak ñiy nguuru njiit ak buur loolu nag li sabab ñu koy dellu siwaat mooy coow li nga xam ni moo dox diggante Djibril waar ak Moustapha Diakhaté Djibril député la ca assemblée national ñuy wax ay wax di di ko jiiñante Djibril War nee na Moustapha lekk na juróom benn téeméeri million yoo xam ne yi ci groupe par parlementaire ba la dugg Moustapha Diakhaté dikk di ko weddi yemale ko ci ñetti téeméeri million nga xam ni kon lima leen doon wax da démb naan leen daal ñii dañuy pàccoo réew mi dafa mel na firndee ngi noonu bu kenn mënta nattable firndee ngi noonu bu kenn mënta nattable nga xam ni daal nguuru moo fi nekk ay citoyen yebal la nga xam ni yow seen taxawaay nga taxaw représentant du peuple ñu bañ ko ba ne la honorable di la jox titre boo xam ne bii bariwul kuñ ko jox mooy ku jara teral ku jara wormaal ku jara waggar nga nekk foofa di séddoo ñaqi baadoolo yi di ko naan di ko diwoo yéen ñàkk jom vous êtes indigne vous même pas honorable ndax nag détail yaa ngi nii Moustapha jaxate moo ko joxeel boppam nee na du du million yi kii di wax cinq millions la woon buñ ko calculer ci diir boobu trois cent millions la moom nee na moom mi ngi touché au de trois millions cinq millions mi moom la ñu bind de ci internet bi ñëpp a ngi ciy teg seen bët nga xam ni Moustapha Diakhaté ci réew mu ñuy wax senegal nga jël cinq millions di ko jox benn nit parweer te nit ñi li ñu yor mënuñ cee fay loyaas mënuñu cee yor seeni fay seeni jàngum doom mënuñu cee lekk ba suur senegale yi di dund boobu dund ñi nekk ay weteñ di manque seen deret yi assemblée nationale 300 millions yooyu moom Moustapha di ko jéemal laayil naan lii dañ cee fay dañ cee fay dañ ciy fay ñiy liggéey ca euh, kiiwu APR benn Bokk Yaakaar temps pour moi bi ci des ñu ne dañ ciy fay ay facture fay ci eau fay ci courant fay ci nettoy nettoiement lenn li ñu ne appui financier maanaam ndimbal pour député yi député bu am soxla ndimbal waaye kuy fayiku ay millions weer fan ngay jaar bay di amati soxla su tax ngay ngay ñaan dimbal yéen ñu yàpp nag dëgg dëgg dëgg nag yéen ñu yàpp nee na yi ci des frais d'hôtel ngeen dugg ci biir hôtel yi di tëdd di di di mbalax di mbalaxal madda yow petit ruminant yi nga tudde ñoom yow génnoo ci petit ruminant yi génnuloo ci petit ruminant yi vous êtes tous pareils et vous êtes la pire espèce du Sénégal passeport diplomatique billet màkka yi extra yi président woo leen may leen xaalis yii moo na ci réew mi ngeen di kokkali nit ñi vous êtes indigne waxuma la carburant ñii cinq cent litres de carburant ñi mille litres ngeen di tambaambaalu di wëreelu réew mi te amalu leen nit ñi benn njëriñ waxuma la ak waa diaspora nag ñoom deux tiers du budget national ci fonctionnement la dugg weesu na ko sax kon ñun fan lañ jëm lu ngeen di investiral nit ñi te loolu kat ku ko topp institution yi fi nekk yépp yeneen noonu lay fonctionner dem leen ngeen laaj port ak ARMP yu mel noonu ay dix millions la ñuy fay benn nit jox ko logement fay luyel ko ko fële ca Almadi ay millions jox ko voiture jox ko carburant lii kat moom képp moo ñu jàpp nag nga ñëw nag ci caisse noire ak assemblée ñëw ci bu bu bu bu bu bu bu caisse euh, lan euh, lan sécurité sociale xaw ma lan social lu tekki du tekkiwul te CSE ñëw ci yee institution boo fi gis rek ay fonds politique yu kenn xamul assemblée boo xam ne bii nelaw ak yuut ak tàccu rek lañ fay liggéeyee nelaw yuut tàccu sans vergogne député yoo xam ni liir sax mënuñu ko bind mënuñu ko bala maa deey mu naan man député Macky Sall laa loolu mooy indignité mooy nit ku ñàkk solo koo xam ni kii mérité wuloo dund su doon ca temps wu jamonoy potentiel dañ lay pendre haut et court il est temps que ça soit li jot mooy lan yéen sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw jot na sëkk nag fi mu ne nii ngeen exiger ñu wax leen fonctionnement institution yooyu assemblée nationale ngeen taxaw laaj lan la député di fayiku par benn benn ngeen laaj député yu nekk ci bureau yi ak secrétaire yi ñaata la ñuy fayiku par weer ngeen xool oto yi leen di jëndal ñaata lañ koy jëndee ngeen xool seen bindaan yeeg seen kër yi leen di luyeel ñaata lañ leen koy luyele seen indemnité de logement ñaata la seen caisse noire yeeg seen fond de pont politique yeeg ak yooyu yëpp jot na citoyen yi ngeen taxaw exiger ñu wax leen ko yomb na bu ngeen ko mënta liir seen doom yi mën nañoo liir temps jot na sëkk bala fee élection beneen amati taxaw leen génne nguur gi li ñuy nguuroo ci suñu kaw nan la toll ñu wax leen ko loolu dafa jot parce que nag dara jàppuñu dara sololuñu lu dul situation boobu nga xam ni moom lañ ñu imposé ñun ñu topp loolu tubaab di wax tirer le diable par la queue jot na sëkk sénégalais yi taxaw nag exiger nag des éclaircissements lii kat ñàkk jàng moo ko indi ci réew mi wala ñu ci des jàng ba pare ñàkk fulla toog di seetaan jot nañu taxaw nag exiger nag ay leeral éclaircissement nañ ñu wax xaalisu réew mi lu tax ñu koy jox ay nit kenn mënu fee am salaire cent cinquante mille deux cent mille fonctionnaire lu mu kawe kawe du passé cinq cent mille ngay fay nit ki un million trois cent mille te amulul benn réew mi benn njëriñ ñuy pàccoo guddeeg bëccëg passeport diplomatique sa jabar passeport diplomatique séddoo xaalis ñu ñu ne déete waaye lii Moustapha Diakhaté wax ñu jëlaat nag trois cent million ku ci am génte ñu jox la ku am dëj ñu jox la ku feebar ñu jox la te ngeen di fajoog bitum réew seeni doom di jàngi bitim réew jot na sëkk nag citoyen yi ñu de ñu demee fulla nag lëf ki kat mi ngi bëgg a yàgg te nag ku bëgg a dee wequ nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.